والقلم وما يسطرون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 wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu بنعمة ربك بمجنون حضور الكرام أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد في رحاب الكريم دار الكريم بقي comme ni ko sëriñ maam sëriñ jiitalee wax ko jotaayu xam-xam la boo xam ne dees koy dundalee fan yi nga xam ne dañ ciy fàttaliku jàmbaar ja Cheikh Massamba te bu bokkoon ci yi ñu koy junjee di ko ko bàkkee ak la mu doon liggéey sëriñ bi muy xam-xam ñi koy tagg ñépp xam-xam la jiital ci la mu wax masalan ku mel ne Cheikh Ibrahima Diop Mash'ari yi bay doom tàmbalee baytu xam-xam la faaqal afaadila ahlal juudi wal karami masamba mbàkke kathirul ilmi wal xikami ba ci beneen xasag dane akrim bi waahibatin lil maali kaatibatin lil ilmi loxo boo xam ne day bind xam-xam Cheikh Mouhamadou Fadal ba mu koy tàgg xam-xam bala cité man li axaadiisi hada alcheikh yaxfaduha xifdan saxixan wala talfihi yaxtawilu sëriñ mu lay boso xam-xam bala cité wiaau ulumin waxam ne moom sëriñ Masamba waa an ilalami alxadimi uluman wattoo na ci sëriñ bi ay xam-xam yu bëree bëri daan mooy ki nga xam ne moo gën a dégg waxi sëriñ bi daan ne bihi ah, daan ne wa man yaxki kalaama cheikhi xarfan bi xarfin mufhiman faxol kalaami nga xam ne riwaaya ci xam-xam moo ko dàqoon ku dul moom cheikh Mouhamed ngay ràññeeku ci xam-xam moom it xam-xam la wax ci moom silwul xadiimi xibbuhu wiaaw ulumihi mooy ndawal xam-xamam waaw ku ñuy tudd noonu dee tudd ci xam-xam sa lépp di xam-xam kon waajal sa bis ci xam-xam dara gënu koo yella te mu ko daan ñaan boroomam te daan ko dund moo tax sëriñ Abdul Xabir ak sëriñ Xaasim baaxoo bu nees bu la màggal gi ñu indi bis bii ngi dundalee xam-xam te jii nag ñu tànn thème bu dëppoo jamono waaye jox ko tim kuy jox ak ab thème muy sëriñ Fallou Bousso moom sëriñ Xasan Bousso moom sëriñ Mbàkke Bousso di ko dalal fii tey big baax ci dalal gi ndax sëriñ Mbàkke Bousso kenn la ci taxawu sëriñ Masamba radiyallahu taala anhu ci xam-xam kon boo deesee fii ci kër gi ñu ngi fàttalante loolu di ko fàttalee loolu tawfeex dëgg la moom mu yëngu ci waar yi ba azhar excellence bi moo ko jiite waaye ñépp ràññee ko ci ne thème boo ko jox dana ko jox yitte ba kuy diglu dana ci jariñu mbokk yi tem bi tey mi nekk alxilaaf anwaauhu wa dawaabituhu wa kayfiyatu taamul maahu maanaam wuute ak lan moo ko war a tënk ak naka lañu war a jëfante jëfalante bu ñu wuute mbokk yàlla dane inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa qabaila maa ngi def ngi nekk ay giir nekk leen ay ay peuple yu wuute daan leen nit ñi soo neexoon ñu waaye nit ñi duñ dañ wuute wala yazaaluuna muxtalifiin daane kenn ku nekk da ngay am dara te la ngay am yow moom ngay bége kullu xizbin bima ladayhim farixuun waaw bu kenn ku nekk amee dara nag di ko bége kon ñu wuutee war nañoo am nag naka nenn nu ñu nu ñu doxee ba kenn ku nekk mën a nekk ci jàmm te maanaam kenn du yàqal kenn dara te wuute du tax seen biir di yàqu léegi naka la ñu war a jëflantee su boobaa ak yenn xeetu yenn xeetu wutee am loolu la suñ fàll bu soo xasan war a dikkal tey ñaan yàlla suñ borom dëgëral ko dëgëral aw làmmiñam may ñu xol yoo xam ne day dégg te day topp kon Cheikh Mouhamed Fadal ahlan wa sahlan fal microphone bayna yadayk wal jumhur yastami'una ilayk rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu eh, sëriñ ba sëriñ ñu ngi lay nuyu jaar ci suñu nuyoo mu àgg ci mboolem ñi nga xam ne nii ñoom lañu seqal jataay bi ak ñi ñuy topp bi ñu déglu di nuyu baax sëriñ maam sëriñ ja ak suñu mbokk mi ñu bokkal jataay bi di rafet lu baax ni nga lay taayee waxtaan wi te muy tomb boo xam ne nii defe naa ne bu mat a waxtaane rek jamono ji ni nga ko waxe ndax gëstukat yi yàgg nañoo gëstu ci maanaam xeet yi ni ñuy avancé wala boog civilisation yi ni ñuy doxe jëm ci kanam xeeti firin yu baree bari nag boroom xam-xam yi firin nañ ko ko waaye am na ci kenn ko dafa wax ne mbir bu dee dox wala boog àddina bi li tax muy dox mooy safaanoo ba noppi àndandoo yu safaanoo ba noppi àndandoo xeex bi ñuy xeex seen biir moo tax àddina bi di dox boo ko doon dëng danga naan kon nature bi ñuy gis nii te mooy li aalam ji boo koy xool sunu borom mi ngi ko bind ci ay mbir yu wuute maanaam ay banqaas yu wuute te banqaas yooyu yëpp nag boo xoolee seen biir dañuy xeex wala boog dañuy mel ni ñuy bëri seen biir ci bëri bi ñuy bëri seen biir nag ci la mbir yi di doxee àddina bi di dox jëm ca kanam ñu joxe ci misaal ne mi ngi mel ne dund ak dee sunu borom daa bind dee bind dund day mel ni ñoom ñaar ñaari safaan lañ waaye fi ñoom ñaar ñoo àndandoo nekk ci nit ci xeex bi ñuy xeex seen biir nag mooy tax nit di soppiku di dox jëm ca kanam ay mbiram di avancé jëm ca kanam kon loolu mooy ñaar ñooñu bokkuñu waaye ñi ngi ci biir nit nit koo gis jamono ji nekk saa su nekk am na ay cellules yoo xam ne ñu ngi dee ci moom am yoo xam ne ñu ngi judd ci moom diggante boobu nag nga xam dee dund googu nag ci la nit di soppi ko ay melokaanam di dox jëm ca kanam courant bii ñuy taal tey boo xooloon fi nekk nii da ngay am plus ak moyen ñoom ñaar ñooy ànd bokkuñu waaye li fekk amoo plus ak moyen doo mën a am courant kon ñoom ñaar wuute nañ waaye ñooy àndaat doo laa mën a jox loo xam ne nii dana la mën a amal njariñ bu fekkonte ne dañoo xool àddina bépp nekk ñu woomal nekk boroomi alal bu ñu ñëpp xëyoon xëy nekk boroomi alal dund gi day taxaw dara dootu dox waaye ku nekk xam na ne bu ñu ñëpp xëyoon nekk way ñàkk itam dox dootu am kon yàlla ni mu mooñu àddina bi am ñu ñàkk am ñu am jëflante gi jëflante seen biir itam bokk ci li tax àddina bi di avancé jëm ca kanam boo ñëwee ci barabu liggéeyukaay yi da nga fekk ñu wax patron ak travailleur wala. ku ñuy liggéeyloo ak patron bi ñoom ñaar seeni jubluwaay bokkul waaye il faut que ñoom ñaar ànd gi ñuy ànd léeg-léeg jàppante léeg-léeg ñu xuloo léeg-léeg juboo ku nekk di jéem a doxal la lay yitteel yow ci wuute gi ñu wuute seen bi nag àndaat ci la tax liggéey bi di avancé jëm ca kanam yaakaar naa ne kenn mënta xalaat askan woo xam ne ñëpp ay góor lañ bu fekkoon ne askan wi ñëpp ay góor lañ kenn dootu judd waaye itam kenn mënta imaginer askan woo xam ñëpp ay jigéen lañ kon ba tey kenn dootu judd kon góor ak jigéen ni ñu wuute biologiquement noonu ànd gi ñu àndaat mooy tax ay yeneen dund yeneen bakkan di sosu jaare ci seen ànd ñoom ñaar lañuy ñuy wuute wuute ci wàllu ay melokaan yu baree ban nga gis ne kon boo ko toppoon noonu nag loo jël ci àddina bi rek ñaar yu wuute ñooy ànd bu ko defee loola di dox jëm ca kanam moo tax wuute sunu boroom ni mu bindi àdduna bi bokk na ci luwaay yi mu sose àdduna mooy wuute googu moo tax mépp mbooloo moo dem gis ne kenn rek mooy xalaat keneen amu fa xalaat mbooloo moo néewaa na lu muy dox mbooloo muy dox dëgg-dëgg mooy mbooloo moo xam xalaat yi ba day juddu bu ko defee xalaat yi di mbëkkante seen biir leneen di ca mën a juddoo mépp mbooloo ma gis itam ñu ne kenn du fi wute kenn nga xam dañ naan ko xas benn kàddu gi daal wala benn xalaat bi daal moo fi nekk ñëpp ci la tënku mbooloo ma ñaare boo ko xoolee mën nañoo ànd ca kaw waaye ca biir ak foñante nga fay fekk mën nañu wax ne ak naafeq gu nëbbu moom nga fay fekk ndax ñu bare ba daañu feeñal ci kaw loo xam bokkut ak la ñuy dund ca seen biir te ñàkk gu ñàkk a mën wax seen xalaat wala ñàkk guñ leen may ubbil bunt ñu mën a wax liñ xalaat moo koy indi kon bu ñu bëggee waxtaan ci yu mel noonu dañ naan kon li ñu bëgg mooy wuute gu ànd ak bennoo wala bennoo gu tegu ci wuute dañuy wuute ba noppi nag ànd di jëflante ci jëflante gi ñu jëflante ci lañ mbir yi doxe waaye nag ci wàllu gës dañuy wax ne lépp lu mënti doon ci àddina su demee ba fa waroon a yem mu weesu ko rek dafay daldi soppali ko ab safaanam mooy lépp loo xam ne dem na ba fa waroon a yem bu ko weesoo rek tatarruf wala ba extrémisme lépp lu mu dugg rek dañuy dem ba mujj nag léegi bu fekkoon lu baax la day mujj mu soppaliku safaan bu doon leneen mu soppaliku leneen moo tax suñu borom koom mi nga xam dañu ko may te may wuute gu ñu def suñ biir te suñ basir jàng léegi aaya bu koy tegtale ci alxuraanul karim yàlla binduñu ci wuutee def ñu ay façon yu baree bari mu nekk richesse boo xam ne ni dañ cee waroon a jariñu dafa mel ne nag richesse boobu wala boo koom-koom boobu dañ koo jël di ko dépenser ci foo xam bokkut ak fa borom fa suñu borom bëggoon ñëpp xëy na xëy nekk borom alal dund gi day taxaw dara dootu dox waaye bu nekk xam na ne bu ñu ñëpp xëy nekk way ñàkk itam dox dootu am kon yàlla ni mu mooñu àddina bi am ñu ñàkk am ñu am jëflante gi jëflante seen biir itam bokk na ci li tax àddina bi di avancé jëm ca kanam boo ñëwee barabi liggéeyukaay yi da nga fekk ñu wax patron ak travail wala ku ñuy liggéeyloo ak patron ñoom ñaar seeni jubluwaay bokkul waaye il faut ñoom ñaar ànd gi ñuy ànd léeg-léeg jàppante léeg-léeg ñuy xuloo léeg juboo ku nekk di jéem a doxal la lay yitteel yow ci wuute gi ñu wuute seen bi nag àndaat ci la tax liggéey bi di avancé jën ci kanam yaakaar naa ne kenn mënta xalaat askan woo xam ne ñëpp ay góor lañ bu fekkoon ne ñu askan ñëpp ay góor lañ kenn dootu judd waaye itam kenn mënta imaginer askan woo xam ñëpp ay jigéen lañ kon ba tey kenn dootu kon góor ak jigéen ni ñuy wuute biologiquement noonu ànd gi ñu àndaat mooy tax ay yeneen dund yeneen bakkan di sosu jaare ci seenu ànd ñoom ñaar li ñuy wuute wuute ci wàllu ay melokaan yu baree nga gis ne kon boo ko toppoon noonu nag loo jël ci àddina bi rek ñaar yu wuute ñooy ànd bu ko defee loola di dox jëm ca kanam moo tax wuute suñu borom ni mu àddina bi bokk na ci luwaay yi sosi àddina mooy wute googu moo tax mépp mbooloo moo dem gis ne kenn rek mooy xalaat keneen am fa xalaat mbooloo mooma néewaa na muy dox mbooloo muy dox dëgg-dëgg mbooloo moo xam xalaat yi ba day juddu bu ko defee xalaat yi di mbëkkante seen biir leneen di ca mën a juddoo mépp mbooloo ma gis itam ñu ne kenn du fi wute kenn nga xam dañ naan ko xam benn kàddu ji daal wala benn xalaat bi daal moo fi nekk ñëpp ci la ñuy tënku mbooloo ma leen ñaare boo ko xoolee mën nañoo ànd ca kaw waaye ca biir ak foñante nga fay fekk mën nañu wax sax ne ak naafeq bu nëbbu moom nga fay fekk ndax ñu bare ba daañu feeñal ci kaw loo xam bokkut ak la ñuy dund ca seen biir te ñàkk bu ñàkk a wax seen xalaat wala ñàkk bu leen may ubbil bunt ñu mën a wax li xalaat moo koy indi kon bu ñu bëggee waxtaan ci yu mel dañ naan kon li bëgg mooy wuute gu ànd ak bennoo wala bennoo gu tegu ci wuute dañuy wuute ba noppi nag ànd di jëflante ci jëflante gi jëflante ci la mbir yi doon waaye nag ci wàllu gës dañuy wax ne lépp lu mënti doon ci àdduna su demee ba fa waroon a yem mu weesu ko rek dafay daal di soppali ko ab safaanam mooy lépp loo xam ne dem na ba fa waroon a yem bu ko weesoo rek tatarruf wala ba extrémisme lépp lu mu dugg rek dañuy dem ba mujj nag léegi bu fekkoon dañ lu baax day mujj soppali ko safaan bu doon leneen mu soppali ko leneen. moo tax suñu borom koom mi nga xam dañu ko may te may wuute gu ñu def suñ biir te suñ basir jàng léegi aaya bu koy tegtale te alxuraanul karim yàlla bind ñu ci wuute def ñu ay façon baree bari mu nekk richesse boo xam ne ni dañ cee waroon a jariñu dafa mel ne nag richesse boobu wala boo koom-koom boobu dañ koo jël di ko dépensé ci foo xam bokkut ak fa borom fa suñu borom bëggoon ñu wéyal ko loolu moo tax ñu dem ba wuute gi ñu suñu borom bindee woon mu doon lu am solo ñun mu bu nekk ab xëccoo te dañ ñëw ci kanam tuuti xëccoo dugg ci biir xëccoo dugg soxorante daal di dugg bañante daal di dugg bu defee dara du dox échec wala boog yoon yoon daal di ñëw dana jaaxal nit lool nga dem ba gis ne wuute rek ci ay point de vue wuute ci ay gis-gis ni nekkoon nekk mu njëkk màndarga ci askan wuy dox nga xam ne askan wuy dund dëgg-dëgg dañuy gis xalaat yi baree bari di fa génn kon bu njëkk wuute gi ñu daan wuute ci ay point de vue ci gis-gis danaan tegtal ne askan yi mi ngi dund bu baax waaye itam daan tegtal ne xalaat yu naat ma nga fay génn waaye itam xalaat yu xóot ma ngay judd foofu bu ñu demee nag ba loolu nga xam avantage la woon sopp ku nekk ak doya ji ak néew doole di ñu xàjjale di ñuy indil ay juyoo ak i bañante boobaa nag dañuy gis ne kon am na leen lu ci dugg te fi ne boo xoolee mbir mi àgg na ci ñi wuute léegi ëpp na ba jéggi de ba nga xam ne léegi àgg nañ sax ci kenn di jéem a faagaagal moroom ja ngir ne dañoo wuute ci ay gis-gis dañoo wuute ci gis-gis rek tax nga bëgg maa faagaagal bëgg maa éliminer benn yoon ma jeex loolu dem nañ ba àgg ci ki ñi ni ñuy amee tey ci jamono yi ñu dund ñu koy gis ci biir mbooloo yi di ko dégg ci biir tas ko ay xabaar yi te ku nekk ñoom da ngaa war a bàyyi xel ci ne. li ñuy wax culture coopération maanaam ñu dimbaleen suñu biir ak jëflante bu rafet tegu ci lu baax mënta am su fekkente ne nanguwuñ ay valeur wuute ci suñu biir ak jikko yi nga xam ne ni moom la wuute war a indi ci suñu biir ñu nangu xëy na nag bokk na ci li tax ñu mën koo tënk mooy ñuy faral di dellu ci diine ndax diine surtout rawatina lislaam diine ju saxal ak wuute la jàngale ko ci fànn yu baree bari waaye nag wutal na ko ay limites ak ay garde fou yoo xam ne ni dana tax ba lu génn débordé di indi ak moo tax xam-xam ci diine dafa war a lënkaloo ak jikko xam ak jikko ñooy ànd bu ko ñaari borom xam ñu wuutee seeni jikko moo leen di tënk ba du débordé dem fenn moo tax sëñ bi jàngaloon na ko ba yàgg ne xam-xam bu bari te ànd te ko bu yar ay loraange rek lay jur jamono ji fekk xam-xam bari na lool. waaye xëy na yar bi mooy manqué moo tax léeg-léeg yi ciy feeñ ci biir xalaat yi di ci feeñ connaissance ba mën doon dafa am ay teggin yu war a ànd su àndut ak moom rek loraange lay daal di jóg moo tax diine dafay bëgg ñuy boole yar ak jàngale defar ak xamle te mooy nit ki bu ñu ko xamalee ba noppi defar ko dana xam xam-xam ba mu koy jëfandikoo te bu wuuteeg nit itam dana xam fan lay jaar ba wuute googee du jur ay safaan te nañuy war a doxal danañu ci dimbali itam lislaam ni ñu ko jàngale wala diine ci sifaama ni mu ñu ko jàngale mooy fu ñu toll di wane benn koo xam ne suñu borom benn la na ko xeet doomu aadama li ñuy wuute yéen ñëpp ñoo bokk fu ñu jógee ci benn jëmm lañ suñu boroom bind wàcce ñu ci kaw suuf def nañu ay xeet yu wuute moo tax bëgg nañ yi wuute ci xalaat di wuute ci gis-gis waaye nañuy bàyyi xel jamono ji nekk ak saa si nekk li nga xam nag moom ñun ñëpp dëppoo nañ ci di fësal liñ dëppoo tey waxtaane ci liñ ñu wuute loolu lislaam sant nañu sant nañu itam ñuy xam ban finalité wala objectif moo ne ci wuute ak yan jubluwaay war a am loolu buñ ko xamee danañu dimbali ci wuute bi du mën a jur ay safaan kon ci tàmbali war na noo xam ne nit ñi dañoo wuute dañuy wax ne ñaar ñu bokk lépp nuroo lépp amul ñaar ñoo gis luñ nuroo nuroo nuroo ak luñ jege jege jege boo leen xoolee am na lu leen wuutale ci seen biir moo tax ñu ne nit ñi ñaar ñu bokk lépp nuroo lépp amul kon suñu wuutee mi ngi tàmbalee ci sunu yaram yi ni ñu wuutee ñii dañoo am yaram ñii tuuti ñii njool ñii gàtt ñii xees ñii ñuul ay wuute yu bare bare ci yaram yi boo xoolee di ko gis noonu lañ wuute ci ay aada ki cosaan ku nekk aada ji nga yor ak cosaan yi nga yor mën naa wuutee aada ji keneen yor ak diine sax noonu lañ ciy wute kenn day gëm ne man chrétien laa kenn juif laa kenn jullit laa kenn man leneen laa ku nekk am na loo gëm jàpp na loolu mooy sa diine noonu tam kon dañ ciy wute dañuy wut sax ba ci gisin ci politique te moo gën a fés nu nuy saytoo askan wi ak nu nuy ci dund gi ay wuute yu bëree bëri dañ ciy wuute waaye li ñuy wuute wuute ci fànn yu bëri yëpp nag dañuy jàpp ne jege noo nañ war nañoo mën a jege ci nañoo bokk luñ bëgg bu fekkente ne wuute gi tegu na ci fa mu war a tegu ñoo bokk lu ñuy ci ñoo bokk itam lu ñuy wut moo tax kon ci àddina bi ñu toll li nga xam ne ni moom wuute fës na fi lool mënta ñàkk ñu jéem di ci waxtaan ba ku ne ci ñun mën a armé wu ci façon bu kawe ci tolérance ak ouverture maanaam nga am xajoo sa digg ak nit ñuy wuute wuute ñu amul xajoo ci suñu biir waaye nga amul ubbiku ci ne. àdduna bi yow dong xalaatoo yow dong amoo gis-gis yow dong jàngoo yow dong amoo pas-pas ni ko amee ñeneen ñi mu amee nga ubbi ko ci ñeneen ñi waaye ku nekk nga nangul ko ca ku nekk ni la yàlla bindee nga bàyyi ko ca nam mel te nangul ko ca bokkuñu li ñuy làkk bokkuñu li ñuy gëm bokkuñu li ñuy waxee bokkuñu ñu doxe waaye nag nag nangulante ku nekk ne na nga mel xëy na noonu moo gën ci yow nga mel loolu bu amul rek. danañ dem dem ba sunu dund day mujj nekk safara ci ñun maanaam wala mu day dund nekk bu naqar dund bu naqari goo xam ne nii nit mën na koo bañ a tee mën a support te defe naa kuy xool jamono yi tool nii di topp débat di xool débat bu suufe bi nga xam ne nii jamono yi moo am ci biir sunu askan rawat na fii Sénégal ay nit ñoo xam ne nii ci rek la ñu waroon dégg ci xam-xam ci jikko yu baax ci melokaan yu baax ñu teg ci digg àdduna bépp di leen dégg. ñuy joxlante ay saaga di tuumaalante di sikki sàkk ci askanu nit ngir rek maanaam ay intérêt yu gàtt yu tuuti ngir rek wuute nañ ci ay intérêt yu gàtt yu tuuti loolu tegtal la ci ne ñun ñii di ay doomu aadama dafay mel ne dañuy dellu gannaaw wala boog dañoo xamatul ni ñu yàlla mooñee woon ci wuute googee ñu nangu moo tax dañoo dem ba jaawale nag léegi wuute ak xëccoo ñun li ëpp ci ñun li ñuy def léegi xëccoo la waaye nekkatul wuute moo tax am na ci borom xam ñoo xam ne nii léeg dañ indi diggante ixtilaaf ak xilaaf ñu ne am na tuuti wuute boo ko wax ci wolof da nga naan wuute mooy ixtilaaf xilaaf nag mooy xëccoo bu wuute demee ba nekk xëccoo boobaa nag day nekk dugg ci ñu ne liñ leen di xàmmee ñu ne man dañu xàmmee ci ay façon yu bari bu dee wuute gi tax ñuy wax wuute te muy gu baax bi mooy ñun ñaan ñëpp dañuy bokk luñ bëgg bokk fu ñu jëm waaye nag yoon wa ñuy jaar ba àgg ca mën naa wuute tey ñi ñëpp mën nañoo bokk jëm ca jumaay Tuubaa yow nga jaar yoon yi ma jaar yoon yi nga jaar yoon yu waaye ëllëg lu mu yàgg-yàgg dañuy dese ca barabu jumaay Tuubaa yooyu ñu ne nag wuute gi tax ñuy wax noona moo tax ñuy wax waaye nag nit ñi xëccoo mooy ñoo xam seen bëgg-bëgg bokkul bokkuñ jëm yoon wuñ jaar ñooñu seenu daje day jafe lool loolu mooy xëccoo bu diggante ba dee tam ñu ne wuutee tam ñaare ñi koy séq ku nekk da ngay mën a andi argument dalil tegtal boo xam ne nii ci nga sukkandiku ci yow ñaari boroom xam-xam buñ doon waxtaan ci menn masala te wuutee ci biir ku nekk da nga indi say argument kii indi alxuraan kii indi hadis kii indi ku nekk da nga indi xalaat xalaat teg ko ci bu dee xëccoo nag daanaka amul argument ku nekk da ngay seet noo mën a fexee ba nat sa moroom rek ci kaw yi wax wax ju ñaaw ak saaga ak yu mel noonu fexe ba gañe ko ca loolu mooy xëccoo bi moo tax ñu ne bu dee wuute gi ñuy wax moom sunu borom nee na wala boog jàng nañ ci diine ñu jàngale ne wuutee ci diggante borom xam-xam yi léeg-léegi yërmande suñu boroom lay doon waaye bu dee xëccoon nag moom ci bidaa yi nga xam ne nii moom ay intérêt kese moo ko fendi ci la bokk moo tax kon fekkente ne la ñuy wuute teg nañ ko ci ay melokaan yu baax teg ko ci argument yu leer nañ teg ko ci xel xalaat boobaa dañ naan dañoo wuute su ko génnee nag xëccoo moo fay nekk waaye nekkat du wuute ba danañ leen xàmmee ci li ñuy sosoo bu dee wuute gi ñuy waxtaane ci xel lay sosoo ku nekk da ngaa am xel suñu borom ku nekk dafa laa jox xel te wax nañu seddale bi gën a maanu mooy xel ku nekk la nga ci am doy na kon ni ñuy wuutee mooy ni ñuy jëfandikoo xel yi waaye xel moom ku nekk sunu borom jox na la kon nag ñaare ñu ku nekk bu la yàlla joxee xel na ngay jëfandikoo sa xel mën naa wuuteeg ni may jëfandikoo sama xel boobaa wuute foofu mën naa faa sos waaye nag finalité ba ca am mooy ku nekk da bëgg dëgg wàcc jël parabam place ak neen jël place am wala boo koy caaxaan yooyu ak maandu te dox ci diggante la ñuy doxale boobaa ci la ñuy wute wuute go wuute ci xal nag li ma ko waxoon léegi moom ay argument yu leer naa ñu ci lay tegu am ay layam ak yu ñu koy leerale loolu nag moom bu ñu ko gisee ci mbooloo tegtal la ci ne xel yi ñu màgg ñu ngi dund waaye itam dana tax xel yi mën a def jëflante seen biir ba mën a génne lu bees mën a àgg ci lu wér loo xam ne nii ku nekk jaar nga ci yoon ba gis ne buñ bokkee bu fekkee dañoo wuute yoon wuñ jaar ba noppi gis même résultat bi dañuy xam ne kon résultat bi ñu gis résultat bu wér la ndax jaaree nga ko nii ma jaaree ko nii nu bokk luñ gis ba ba am bu dee geneen xëccoo bi nag moom ci bànneex dong lay tegu bakkan waaye sax yu am benn fu muy tegu ay intérêt personnel yu gàtt moo koy jur muy xëccoo ak bëgg sa bopp égoïsme wala bopp anaamee gu mat sëkk loolu moom bu amee ci nit bu feeñee ci nit rek dootuñu wax dañoo wuute waaye dañuy xëccoo ci seen biir ndax ay njariñ dañuy xëccoo xëccoo boobu nag moom lañu yàlla di moytuloo ci far fu baree bari ci afaanul karim doon na ko wax daawuda naa ko dama la wàcc ci kaw suuf ngir nga àtte nit ñi ci dëgg waaye nag bu topp sa bakkan ak sa bànneex boobaa da ngay sànku dootoo gis yoon nag te ku sànku nag mbugal mu métti mi ngi lay xaar ak na ko wax ci alxaanul karim fi mu ne nii baraana ci nit ñi wala ba koy gis mu wuuteeg nit lool ba àgg ci xëccoog moom gëmut sax ne waa ji li mu nekk daa wéru waaye dafa gën ne waa ji la muy wax moom dëppoowut ak ay intérêt ay njëriñam loolaa tax mu wuuteeg moom loolu moom bari na lool loo ko gis ci jamono ji nii moo tax li ngay dégg xëccoo bi bari loolu léegi da nga gis koo xam leer na sax mën naa am sax la nekk moo gën a wér la nekk waaye nag comme yow lam nekk moom dëppawut ak say intérêt nga daal di commencé ne damaa wuuteeg moom di xëccoog moom moo foofu nag buñ fa àggee yow da nga naan kon man nu ma mën a fexee daal ba waa ji yi ma faagaagal ko ba sama njariñ li may séentu du ma ko yàqal loola dama koy def loolu nag mooy li ñuy dégg ci jamono yi ma ko waxoon léegi ci ay wax joo xam ne nii siiw na ci fan yi nekk jamono yi nekk nii te la la koy gën a xamal nag mooy ñi nga dégg ñuy xëccoo ci rajo yi ku nekk di yàq sama morom lu mel ne xamee fi mu nekk nii suba donc ma ñaari fan ñett fan nga leen dégg seen position soppi complètement bu seeni njariñ tuxoo rek seen wax daal di soppi moo tax danga gis fii tey kuy opposé wu di dal ci kaw koo xam ne bërki dem da doon défendre gis fii kuy défendre koo xam bërki kuy kuy dal ci kaw koo xam da ko doon défendre dem gisaat koo xam ne ni ñuy défendre koo xam bërki dem moo dal ci kaw kon foofu da gis ne teguwul cim xel waaye ci intérêt kese ci la tegu kon wuutee bu tegoo ci intérêt xëccoo lay tudd waaye doo tudd wute waaye nag wute gi tax ñuy wax moom moom la suñu borom moo ñu doomu aadama te ay njariñ rek moo ci mën a juddoo ngir nag wute googu nag ñu mën koo jëfandikoo ci façon bu positif wala ba façon bu baax danañ nangu ne kon moom la yàlla bind àdduna bi mooy wuute googu te kenn mënu cee mucc wuute ci ku ñuul ak weex wuute ci melokaan wuute ci ay giir ni ko sëñ bi waxee woon léegi wuute sax ba ci ay santiment say yëg-yëgi biir ci xel yi lépp ñu wuute ci moo tax sax benn waykat ne woon nit ñi wuute nañ ba mënatuñoo dëppoo ci seen biir ba sax wuute gi ñuy wuute ci seen biir sax dañ caa wuute far benn wuute gi ñu wuute seen biir sax dañ cee wuute nuñ ciy wuute mu ne kon wuute moom suñu borom moom ci la tëgg àddina bi te kenn mënu cee génn mooy aay bi suñ jàngoon léegi yàlla wax na man maa leen bind def leen ngeen ay góor ak jigéen def leen ngeen di ay xeet ay population yu wuute waaye lu tax ma def ko nag mooy ngir ngeen mën a xamante ngir ngeen mën a mottulente foofu xamante mooy mottulente moo tax ngir wuute mën a nekk lu positif lu baax il faut que ñu dégg ci ne dañ ko war a investir ngir mën a mottulente mooy ne yow am nga loo am man ma am lu ma am keneen am lu ma am kon la nga am te man óoma ko dama koy jël ci yow li ma am te yow amoo ko nga jël ko ci man bu ko defee ku nekk mën a mottali sa morom moo tax dañoo war a gëm ne kon dund gi joxe la ak jël dangay joxe di jël am na loo xam ne ni am nga ko te nit ñi soxla nga jox leen ko am na lu nit ñi soxla te amoo ko nga jëli ko ci ñoom waaye foo fekk koo xam dafa gën ne moom daa war di joxe rek waaye moom warut a jël ci kenn kooku ñëpp dañ koy raw ndax nit ñi day ñëw jël li nga baax le dem boole liñ baax le daal di dox ci kanam jiitu la kon ki gëm ne moom daa war di joxe ndax gëm na ne moom lam yor am na auto am na satisfaction ci lim yor mënut te soxlaal kenn dara koo ko foo ko fekk ñaar doxam dafay yéex waaye itam kii jëli rek te di joxe bu yàggee day jur ci moom ak yan jox ak yambare moom lay jur ci moom. moo tax kat yu baree bari bind nañ ci wàllu wuute ak nu ñuy fexee ba man koo jëfandikoo ci façon boo xam ne nii façon bu positif lay doon boo demee ci Yuusuf Xaddaa yi moom bind na ci téere te xool ixtilaaf maanaam. ak wuutee naka lañ koy mën a dégg ci diine ak naka lañ ci mën a jariñoo téere bu mat sëkk la ci bind bokk na ci lam wax nee na ngir wuute mën a amal nit ñi njariñ fokk ñaar ñi wuute man damay gëm ne wuute na ak yow waaye nag ëppuma la pas-pas fi mu nekk nii ñun ñu baree bari bu ñu wuutee da nga daal gis ñu daal def ak yéefar tàng-tàng mel ne moom moomam diine ji ba lay dugal ak génn fi mu nekk nii de am na lu ma doon wax ci murit gi ñu wuutee gis-gis rek nga daal ne ma yow kon jàppal ne li nga am ci da murit gi moom laa ci am li nga am ci diine gi moom laa ci am li nga am ci politique moom laa ci am kon nag am naa sañ-sañu wuut ak yow ci aw déggin loolu bu ñëpp déggoon defe dana am solo bul jàpp ne yaa ñëpp xam-xam ba yow nga ne daa réer ab jaahil déedéet na loo xam waaye amul kenn koo xam ne xam nga lépp kon nangul ne am na lu yàlla mais nga xam ko waaye am na kenn koo xam xam ne leen nga nangul ko lam xam moom tam bul jàpp mu kin ne nag ma ëpp ñëpp xel ba tax na ku wuuteeg sama xel rek damay gëm ne yow sa xel daa matul yooyu nee na buñ ko defoon bu ñëpp ku nekk gëmoon ne ëpp ma kenn pas-pas gënumaa wérle kenn pas-pas ëpp ma kenn xam-xam gënumaa kenn mu xel waaye dama koo am ñeneen ñi am ko kon wuute ga dana mën a jur jàmm suñu biir moo tax su fekkoonte ne ñëpp amoon nañ dégg lu mel noonu kon kenn du def kenn yéefal ndax daa wuuteeg moom rek nu mu déggee diine kon kenn du génne kenn ci murit gi ndax daa wuuteeg moom rek ci aw déggin waaye itam kenn du dal ci kaw kenn ngir ne da ngeen wuute rek ci gisin ci wàllu politique ci wàllu doxalin àdduna ba tax nga di ko xeet wala yu mel noonu boobaat kenn du xeet kenn kenn du saaga kenn kenn du wax kenn wax ju ñaaw waaye dañuy gëm ne compréhension yi yàlla defal nit du lu yàlla wàcc ci alxuraan dañ gëm ne rek kon du lu yàlla wàcc ci alxuraan waaye aw déggin la ku nekk nag daf laa joxu déggin kon nag comme du alxuraan nag nangul ne kon kee la dégg man na muy déggee mën naa wér man it ni muy déggee mën naa wér ku nekk nag indi seen argument ñu mën a wéer loolu moo indi école yi nga gis yu bëree bëri tey boo demee ci lislaam ay école yu bëri nga ciy gis waaye ña ko sosoon moom wuute woo seen wuut ak gutoon ci xëccoo maa ku nekk nanguloon nga sa bopp ne lam nekk wér na man tam li ma nekk wér na waaye nag ñu gëm nekkoon école yooyu ay déggiin la ci diine waaye du moom mooy diine aw déggin la ci diine waaye du moom mooy diine donte nañ ko askanal diine loolu nag ni mu walaabale ci islaam ci diine l'islam noonu la walaabale ci yëpp xalaat lépp loo xam doomu aadama daf koy produire moo xam ci diine la koy tuddee moo xam ab tarixa la moo xam idéologie la moo xam lu mënti doon jàppal ne ay déggin yu baree bari mën na caa kon nag bu fekkente ne diine ji yàlla wàcce moom la nangu ñu dégg ne dégg ñu am ci déggin yu wute kon idéologie ak xalaat yi nga xam ni dong génne moom du wax xam naa kon dañuy julli kon ñoo ngi woon ci nu mel mën fexee ko wuute ñu ngi koy jëfandikoo ci melokaan boo xam ne nii melokaan wu yiwee lay bu baax lay doon ñu doon safaan ñu tolloon ci nit ku nekk war a gëm ne ni nga amee pas-pas am xel am loo xam keneen nun loo xamee am lu xam amum xel kon bu jàpp ne yàgg na wér li kenn pas-pas walla yàpp la kenn xam-xam wala boobu yaa gën a ñor le kenn am xel ba tax ku wuuteeg yàlla nga jàpp ne moom lam nekk du dara beneen bi ci topp mooy ngir wuute gi mën a jur lu baax il faut que mu ànd ak yéene ji sell maanaam ñun ñaar ñi wuute na fekk suñu am yéene ji sell si biir ne kenn jubluwu ci yàqal kenn waaye nag xëy na dañoo bokkoo gis-gis ci mbir mi loolu nag bokk nag lañ koy may mooy ku nekk nga jël sa morom teg ko sa place di ko xool da ngay xoole sa bopp fam nekk boobaa da nga da ngeen mën a wuute ci biir ndax boobaa ni ko benn borom xam-xam wax dañuy wax da nga naan kon man ni ma gis mooy li wér donte mu njumte mën na cee waaye kële itam la gis mooy njumte donte lu wér mën na caa nekk bu ko defee da nga koy daal di nangul kon maanaam yéene ju sell yi ku nekk la yéene ñi ñëwuñ ngir xëccoo waaye dañoo dañoo am lu ñu wuute ñu war cee waxtaan ba mën cee gis benn tomb boo xam dañ cee mën a dëppoo ñu doon caa dëppoo it mënta ñàkk itam ñiy wuute di nangoo mu ñu leen di seen biir ndax ku nekk xam ne nga indi xalaat wala nga indi gis-gis keneen indi gis-gis bu wuutee moom wala xalaat bu wuutee moom bu fekkente ne amoo yaatu dënn rek da daal di gis ak xat-xat kon muñ googu mën cee ñàkk waaye itam nangoo mu daaraante mu daaraan mooy maslaa maanaam mooy wuute nañ li ñuy wute wute nag war na noo mën a am lu nu bokk alxuraan sax loolu la jàngale moo ne ñi nga xam ne bokk ñoom ñoom diine bokk ñoom ñoom pas-pas bokk ñoom ñoom gis-gis kon wuute nañ ci lu baree bare waaye nag mu ne nag loolu teewul nag lañ bokk muy suñu njariñ war nañ caa mën a maslaa mu daaraan te ngir ñu mën caa bokk njariñ li fekk nag doxuñ suñu digganteeg yeneen kon nangoo mu daaraante ci ñi koy wuute yi dana tax seen wuute di jur ab safaan waaye tam wuute nañ yow ngay jëfandikoo waxin wu ñaaw damay fexe man mi nga xam ne nii xëy na jàpp naa ne maa ngi jëfandikoo sama xel ma bañ laa tontu ci tontu lu ñaaw loolu maanaam ba mu xëccee ci terrain boobu ma bañ la daa fekk si waaye man may fexe bay argumenté wu yow doonte yow yaa ngi saaga wala ngay xaste wala nga def lu mel man may wéyal samay xalaat ak samay jéem argumenté andi ay lay di loolu ñaare boo ko defee day gis ne ci ngay gën a mën a gaawa a convaincre nit waaye itam nit ci la li gën a gaaw nangu li su fekkee ne da ngaa wëlbatiku di xëccoo moom xeex ak moom ñii mooy itam li ñuy wax taassub taassub nag mooy nit ki dellu ci boppam mooy ñëw repli identitaire maanaam nga xam ne nii dangay ngay dem ba dootoo gis sa bopp rek ngay gis loolu mooy taassub ci wolof mën nañ ko firee farfarloo ku nekk am nga foo féete loolu ñëpp ñëpp am nañ fi mu féete waaye nag parparloo moom la ñuy bañ kon mën nañoo wuute ci ay péete waaye nag buñ ci dugal farfarloo moo tax wuute balaa baax dañ ciy génne lépp luy xeeti parparloo waaye ku nekk nangu ne naa andi aw lay te andi aw lay kon ñu jàpp ne wuute gi jumtukaay la bu ñuy jëfandikoo ngir ku nekk mën a wéral la wax waaye nag farfarloo bu xasee ni ci nit nit ki day gumba dootu xàmmee ka wax suuf dootu xam li ñuy def sax dootu xàmmee sax dëgg ak bu neen da gis ko xam day ngoy ci mbir mën naa mën na ko wóone sax du dëgg waaye da cay ngor ngir ne day fay far dafay far farloo kon far farloo bu duggee ci nit day tax nit ki dootu ràññee dëgg ak bu neen moo tax ngay gis kuy far farloo ni muy jàppe noonu lay bàyyee force bi muy jàppe noonu lay bàyyee mën naa bëgg lool léegi suba nga xëy ko gu mbés gis mbañ mbañeel gu toll ne gëm bëggee woon kon farfarloo bokk na ci yi xam ne nii fexe ba génne ko ci wute gi tax ñu koo jëfandikoo ci façon boo xam ne nii dana am njariñ yooyu nag am na yeneen ci tudd yu bare bari waaye yooyu la ci ne wuute mën naa am njariñ fekkee def am nañ ci déggin bu baax di ca doxe doxe bu am solo su loolu amul nag wuute day soppiku soppiliku nekk xëccoo boobaa dafay nekk lu négatif ci biir askan dana andi xuloo andi fañante indi itam ñàkk a dal ci biiru askan ndax xam ngeen ne mbooloo mu mënti doon su fekkente ne kenn dégluwul sa moroom ñëpp di xëccoo ku nekk di xëccoo ma ci barab mbooloo ma mën na faa jaare far faagaagal far daan moo tax am na mbir yoo xam ne ni foo ko gisee ci ak wuute xamal ne ma ngay jëm ci xëccoo bu ko defee yow boo dee yaa ànd ak sama xel nag fexeel ba loolu bu la ci kenn xëcc bu la ci kenn dugal foo dee ba gis nit ñi di wane seen bopp dañoo wuute rek nga bëgg maa wan ne man maa la féete kaw du ma sa morom wala ñu mel noonu def ni ko baat yooyu wala wane sa rëy wala ngay xool keneen gi bëtub xeebeel wóoru ci sa bopp booba jàppal yaa ngi bëgg a dugg ci xëccoo déggéen nga ci bu wuute loolu loolu moo daloon iblis iblis daa waxoon yàlla ne ko yow man gaa yi ma ngi wax nga may tëkkaleel maa leen gën ndax ñoom ci ban nga leen bind mën nga bind li mën nga bind ma ci sawara wala moo xam na ko bind kon nit ki bu demee ba gis ne rek moom moo gën ki mu jàkkaar lool rek daal ne dugg nag ci maanaam aspect négatif ci wàllu wuute googu loolu nag mooy indi léeg-léegi nit ki dem ba dootu ànd ak sagoom mën naa jëfandikoo ak coxorte violence mën naa jëfandikoo baat yi ñagas baat yi tëgginu ci waxtu ak ci jëf di ko teg ci kaw ngir wan ko ne ko man duma sa morom boo demee ba gis nit ki sacré sacré maanaam sacré boppam sellal boppam maanaam taqdisu daat dem ba jàpp yow sa jëmm kenn waru koo laal amul kenn amul seen sañ wuute ak yow waroo wax kenn di ci teg baat jàpp na yow dong yaa am dëgg keneen ku dul yow nga xeet ko ngir ne xëy na jàpp nga ne yaa ko ëpp xam-xam wala yaa ko ëpp alal wala daal yaa ko ëpp judd wala yu mel noonu boobaa génn nga ci wóor yaa ngi bëgg a dugg ci xëccoo bu mën loolu nag mooy dem ba nit ki li ñuy wax dipotisme moo te mooy istibdaad mooy nga dem ba gën ne yow kenn warta am xalaat yow dong yaay xalaat ku indi xalaat bu wut ak yow nga dal ci kaw loolu mooy dem ba indi farfarloo ci wàllu gis yi ak doya dal gis yi loolu nag mooy jur tàqaliko ak ak ak tasaaroo ci biir mbooloo jéem a marginaliser ñi ci des jéem a anéantir ñi nga xam ne nii dañoo wut ak yow tam bari na lu muy jur ci violence bi ñuy gis te muy muy tàmbule ci wuute ba mu yàgg mu sopp li bu nekk ak xëccoo moo tax foo fekk ñaar ñuy discuter bokk na la nga xamee ne ñoom seen discussion am na njariñ te ña ngay jëfandikoo seen xel mooy ku nekk ci ñoom dangay ngay a indi ay lay lay yoo xam ne nii ci xel nga koy teg waaye dem ku nekk ñoom lay ya nga indi da ngay gis ne buñ ko jàngatee dëgg-dëgg ñoom ñaar sax mën nañoo daje ci benn benn tomb loolu kon du xëccoo du ca jóge wala yu mel noonu léeg-léeg gis tam nit ku dem ba mu jàpp ne moom dëgg moom àgg na ci te ngëb na ko te da ngeen dañoo xamul ne dëgg saa yoo demee ba ne ngëb naa ko rek mooy rëcci na la bis boo demee ba gëm ne yow yaa àgg nga ci dëgg ngëb nga dëgg jàppal ne rëcc na la ndax boobaa lu wuuteeg loolu da ngay jàpp ne lu dëgg te ba fekk na mën naa bañ a demee noonu moo tax dëgg objectif la boo xam dafa nekk fële ñuy dox di jëm luñ ko gën a jege nag mu gën a baax waaye si boo demee ba gëm ne yow man li dëgg laa wut te ngëm naa ko nag mooy rëcc na la boobaa dootoo nangu kenn ku wuuteeg yow dootoo nangu kenn ku wax leneen moo tax am na kilifa gu mag danaan dee leen wax xam sa bopp te bu leen wax gëm sa bopp nee na ki gëm boppam mooy ki jëm ne moom jàpp na dëgg te keneen ku wuteeg moom nekkoo ci dëgg xam sa bopp nag mooy nga xam ne man gis naa am na lu ma gis keneen am na lu ma gis kon mën nañu wuti moo tax ku nekk jàppale ne am na loo jàpp ci mbir mi keneen am lu mu jàpp bu ko defee boo bëggee am dëgg nag dangay boole li yépp jàpp tamit lu baax ñu mottulente leen dimbalante mën a jàpp àgg ci dëgg loolu lislaam jàngale na si lu bëree bëri mooy li léegi rek boroom xam-xam yi ñu gëmee ni ku nekk gëm ne sama gis-gis mooy dëgg waaye nag mën naa am njuumte gis-gisu keneen mooy njuumte waaye mën naa am dëgg la loolu mooy wuute gi tax am na beneen bu ci yokk mooy léeg-léeg nit ñi dañuy dañuy dañuy dañuy séddale nit dañuy classé nit ñi dañu am foofu bu ñu la xasee classé rek maanaam du duñ la déglu fi nekk ni ci misaal day ñun bu ñu xasee ne diw salaf yi la wala wahabis la ak loo ma dox kenn dootu la déglu bu ñu xasee ba diw camp politique sàngam la bopp kenn dootu la déglu kon seddale nit ñi classifié leen ku nekk wutal la foo xam dootoo fa génn ba tax dootuñ la may sax nga wax sa xalaat loolu bokk na ci liy indi aspect négatif ci wàllu wuute moo tax ki nga seqal àdduna nga xam mooy kan xam ay xalaatam xam ay fu jëm ci wàllu pas-pas xam ban kuréel la bokk xam yan sentiment moom moo koy animé loolu lu am solo la waaye bu mu tax mukk na nga jàpp ne war nga koo mën a àtte ci déglu googu mu kon nit ki loo xam-xam ne moom fële la bokk loo xam ne lii may ay jubluwaayam da koy déglu ba mu wax ba noppi su ba noppi nag ca la mu wax da koy àtte waaye ñun duñ def loolu ñu bari ñun maanaam bu ñu la classé fenn fi rek kenn dootu la déglu loo mën di wax ak lu ma am njariñ kenn dootu la déglu te moo ne lislaam jàngale woon na ne. xikma te mooy xeranteef alali jullit ju réer la fu mu ko fekk moo ko moom moo tax ñu ne soo doon dox ci guddi gu lëndëm ba gis godoro buy tàkk xet ga la muy naqari naqari da nga jéem a niitu ba xam fi ngay jaar kon nit ki ngeen bañ a bokk ci pas-pas bu mu tax mukk nga bañ koo déglu da koy déglu ma wax ba noppi la muy wax la ci am njariñ nga jël ko la ci amul njariñ nga bàyyee ko waaye nag classé nit ñi ay groupe ku nekk nga wutal ko fu mu bokk loolu dana indi tax dootuñ mën a déglante loolu nag mooy lii bari ci suñ jamono jii boo demee ci diine ji am na ci ñi ay siyan lañ ñi ay sunni sun ay sunni lañ tuddee seen bopp ñi seen bopp ay siyan ñi lañ ñi ay tijaan lañ ku nekk classé nañ la fenn booy wax sa moroom ma nga bokkalul kaa moom du la déglu naka noonu jëm ci diggante salaf ak waxaat si politique bi noonu la demee fi ne ku nekk dañaa wuti parti politique boo fa nga bokk fi ne ñaar ñu bokkul parti politique ak nañ nañ kii kii rek bu ñu waxee kenn ko waxee kenn dañ daan xëpp suuf du ko sax mba xam la mu wax baax na wala baaxul waaye comme bokkuñu maanaam parti politique buñ bokk dañ ci daal di xëpp suuf loolu nag kon nit ñi buñ leen classé selon li ñu téye waaye nañ bàyyi ba déglu wax ji la ñuy déglu donte mën nañoo bañ a bokk nag am naanu waaye yeneen yi léeg itam ñu bëgg a imposer nit gis-gis te duñ ko may buñ tut mu discuter xalaat bu mënti doon yow mi ko indi bu fekkee topp nga ko ba mu ñor boo ko gaaralee nit ñi war ngaa mën a may nag ku nekk génn ci xalaat fii ne même ñun sax li ñuy def ne léeg ñu ne dañuy def conférence da ñëw rek wax ba na kii ne wasalaam ñëpp na dem war nañ ko xool ndax li nga wax war nañ ko munaaxasa discuter ci ndax ba xam ñëpp ànd nañ ci ànd ci ku ci ànd lu tax ànd ci ki ci ànd wax lu tax mu ànd ci loolu mooy tax ñu fi jógee ku nekk mbir mi mën naa convaincre kon imposé nit ñi gis-gis te ne kenn du ko warante kenn du ci waxtaan loolu moom ci li tax wuute indi safaan ci la bokk ndax danoo war a nangu ne suñu borom ni ñu mooñu mooy liberté liberté yàlla daf ñu ko mooñaat képp ku la ko xañ rek mooy xañ na la sa nite moo tax nit ki boo rekkee ci moom liberté am ak sañ-sañam mooy rekki nga ci moom ak humanité am génn ak nite moo tax lislaam bi suñu diine di aaye ku forcer nit ak ku nit ak lu mu mënti doon na ak gisiin la ak xalaat la ba ci diine sax dañ naan la lislaam sax li muy baax baax li muy wér-wér kenn du ko imposer kenn kenn du ko forcer kenn dan la koy leeral ba mu leer sa bopp bu la doyee nga bu la doyee nga dem seet lenn moo tax kenn amul sañ-sañu nit ci diine wala forcé nit ci pas-pas wala forcé nit nag ci ay gisin wala rawat nag bu dee ci wàllu politique ak yu mel nga xam ne moom gisin doomu moo tax loolu li muy jur mooy lan mooy nga forcé nit ki ci pas-pas dana jur fitna fitna yu baree bare mi ngi jur ci àdduna bi te moom li ko jur bokk na ci imposé gu ñu imposé nit ñi ay pas-pas wala yu mel noonu bi ci topp mooy nit ki dem ba ñu wuute ma yow ngay wax may wax ngay lay may lay bu fekkee da ngaa dem yow ba say lay jeex da ngay génn ci buntu bu wuute dugg ci buntu bu xëccoo fi nekk ni ki ngay waxtaanal ngeen wuute ngeen di discuter bis boo demee ba gis ne ma ngay commencer di la attaquer personnellement di la saaga wala muy dal sa kaw jàppale daa am ay xalaatam moo jeex nit bay xalaatam jeexee violence rek dafay sës. moo tax fi ne koy discuter nga dem ba gis ne kàddoo ma ngi jóg muy commencé jëfandikoo baat yu ñeges boo amee xel yow génnal ci discussion te xam ne moom ay xalaatam dafa jeex moo tax nit ku dem ba amatul argument dana tax mu wëlbatiku di saaga di xeex di xuloo ndax amatul lu mu wax loolu moom ngay dis ci jataay yi baree bari ci benn benn jataay yi am di ngay dégg ci léeg-léeg muy wax yu ñaaw yu ñeges mooy ña koy wax amuñu argument parce que da amoon indi benn argument amoo idéologie bu leer xamoo sax projet de société bu leer loo man mooy daal kii bokkuñu camp politique lu ma saaga ko lu mu wax ma sikki sàkk ci ñu mel noonu yooyu amul benn njëriñ loolu dañ ci passe suñu bu bëree bëri fekk am na si problème yu sérieux yoo xam ne ni war nañ cee mën a waxtaan ngir mën a am ay solution loo xam ne nii borom xam-xam bu mag ci woon na la te mooy dafa gëstu woon ci soxlay nit ñi mu daal koy def ay dara def ko lu mel ne forme pyramide maanaam suuf bi ni tàmbalee ba ci njabootam la mu ne nit li ngay njëkk a soxla woo bu ci jógee soxla woo bu ci soxla woo lii soxla soo ci faccal nag dafay daal di sës nit am na ko xam bu fa tolloo lekk ak naan mooy doom yitteem lu lekk ak lu mu naan moom lay fexe nu mu ko amee kooku doo ko dégg muy waxtaane sécurité wala yu mel noonu wala xalaat xalaat waaye nu mu mën a amee lu mu lekk ak lu naan ci lay xëy di ci gont bu demee nag ba soxla soosu moom faju da ngay gis mu commencé beneen soxla judd mën naa am mu ne war na sécurité ndax léegi daal bëgg naa ku may aar su ma tëddee ak yu mel noonu su loolu fajoo nga gis mu ne damaa soxla daal léegi am nag fu may fu may féexloo fu may noppaloo ñu defal ma naan ma nangam loolu la soxla yi di taf toloo moom nag bi nga ko jàngatee gis na ne soxla bi si mujj fële ci kaw neen nit am na foo xam bu fa àggee day soxla woo ku ko yëg estime maanaam estime lay soxla ku ko jox cër estime boobu muy soxla woo nag bokk na ci la koy màndargaam day bëgg ñu ubbil ko nag bunt muy mën di wax xalaatam di wax gis-gisam di bokk ci waxtaan yuy yëngal askan wi ak di ko doxal day bëgg na kàddoom ñu ko cee dégg foofa nit dafay àgg kon kooku weesu na yéen yi noonu waane yi moo tax jamono ji ñu toll nii ñun jàpp nañu war nañoo weesu suñu yitte fu muy nekk ay maanaam besoin maanaam ay yitte yoo xam ne nii rek ak lekk naan la fi ne donte xëy na ñëpp bëtal guñ ko waaye war nañ koo weesu léegi fi nekk ñi ngi toll ci ku nekk sa cër ñu jox la ko moo tax ñu bare ba dem ba gis ne forcé nit ñi ak tëj gémmiñ nit ñi par force ak dëgg jëfandikoo doole ngir ne kenn dootu wax loolu moom jàpp nañu àdduna daf ko wees kenn mënatu koo am tam fi nekk ni ci mu jamono toll yi ndax nit ñëw weesu ko moo tax gannaaw bu nit doxee ay jéego yu am solo ci wàllum civilisation libéré boppam ci baree bare ci xeetu njaam ak noteel mën a tuddeel nag di nangu kuy tëj gémmiñam kuy forcé jëfandikoo doole ngeen ne ko doon waxee loolu moom maanaam émergence bu bari rek mooy nar jubbi waaye loolu moom nit mënatu koo nangu moo tax am na ku waxoon wax ju am solo ci gëstukat yi nee na woon ci jamono ji ñu toll nii il faut ñu bàyyi xel yeeg xalaat yeeg xalaat ña xeltukat yi xel yeeg xalaat ñu bàyyi leen ñuy mbëkkante ci xel xalaat wala buñ ko deful jëmm yi seen bopp ñooy mbëkkante noo ngi jégalu wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jazakallahu xayran cheikh Fadal yan la yàlla waxtaan wi am na njëriñ lool te gànjaru na lool alhamdulilahi rabbil alamin ndax xam nañ ne nekkete wuute day yokk waaye du wàññi ne wuute mooy dox ak ndax bu amoon ñàkk danañ góori wala wala illaa dund du neex bu dundoon dee amul bu góor ak jigéen amul woon am waaye wuute mun na ñàkk ci àdduna bi waaye ñàkk wuute ak raraange la kon ci gàttal wuute baax na waaye xëccoo moom moo baaxul wuute mooy wuute gu am njariñ xëccoo nag mooy wuute goo xam ne ci bànnee rek la laaju kon dañuy lay sant te di la gërëm ñaan yàlla gën laa dëgëral gën a mën a tisaare lislaam ak yee nit ñi yal na la yàlla yàgg lool ba li sa maam yi dal liggéey ci xam-xam lépp nga am ci tawfeex ju rëy rëy rëy rëy barkeb na Ahmad al Xadim kon dañuy jox sa alxaaji Moustapha mu def ci ab taaliq ab commentaire ci sëriñ bi doon wax bu àggalee ñu jox sëñ Ibrahima Gueye mu wax ci li soxla bis bi ak li waral bis bi bu loolu jàllee ñu jox incha allah sëriñ Moustapha wala ku koy waxal ngir ne sëriñ alxaaji Fàllu moom sëriñ Abdul Baaxi dañ ko fàttaliku ci bis bi yal na ko yàlla dolli ay yërmande bu loolu jàllee sëriñ ay kàddu kàddu yi cant bu loolu jàllee ñu jox kilifa jotaay bi mu ñaan ñu mën a yeewee ko incha allah kon bismillah tafaddal mashkura والقلم وما يسطرون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 assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bi ni'mati rabbika bi majnun